encore là. 88 628 7878, allô Allô, oui, ça va Salam alaikum. man la <laughs> Ndoye Bane. Ndoye Bane am def. waaw ah, maa ngi nii rek di leen bëgge rek. ah <laughs> fii la ëppee ngi leen bëgge bu baax. <laughs> man man émission lay déglu suba gi ba allah allah. Ah, yow yow yow ku baax nga fan. <laughs> man mbokki RFM. waaw. Eh, Ndoye Bane na nga def. ah. na nga di ñàkk solo rek. kontaan nag ci dégg bi ñu lay dégg Vibe Radio ci waxtaanu bés bi. ah c'est pas la première fois mooy woote ah man damay woote ci émission yi de. ndeysaan fidèle auditeur waaye. yal na la fay. <laughs> mais affaire suukaru koor gi moom. waaw Mamadou. li may wax naan c'est de la corruption conjugale. いや。parce <laughs> que soo ko génnewul dañ leen dañ lay xar. Mm-hmm. mais man faute bi góor ñi laa ko teg quoi man par exemple ku mel ni man. Mm-hmm. du ma nangu par exemple sama sœur di xas sama jabar. waaw waaw du ma nangu tamit sama famille di xas sama jabar ndax ay sukkur koor du ma ko nangu. Mm-hmm. su ma ko amee dinaa ko ko jox te ñëpp dinañ xam ne ko koy jox mu joxe ko. mais su ko joxewul et puis du am ah, te loolu sa boppam su fekkee am na taxawaay bi taxaw pour défendre sa jabar kenn du yàpp sa jabar ba ko koy ba ko koy xase. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw su ko joxee ça su ko joxewul c'est c'est ah. c'est ça donc góor gi moo war a am personnalité ci biir famille ba nga xam ne kenn du yàpp jàpp. Mm-hmm. ah dégg naa nga xam ne yow yaa ko yow yaa ko fa indi amu fa benn mbokk bu dul yow. soo ko bëgg a bàyyee bàyyeeg sa famille sa yaay di dóor sa say sœur di dóor et puis et y' a détournement de suukaru koor <laughs> xam nga lu tax ma wax ah, ah, par exemple suñu yaay yi dañuy xaar suñu suukaru kooru jabar yi. su sunu jabar yi indee suukar koor ñu jël pañe ba jox ko seen doom buy sëy feneen mu dem joxe ji ko mm-hmm. Mm-hmm. ah bon mm-hmm. ça c'est détourne loolu enrichissement illicite bi ñu coow ci dëkk bi loolu <laughs> loolu am la <laughs> donc règle bi il ngeen maanaam da ngay gis koor bu ñu koor bi dem ndar ah bon ok c'est grave détournement de suukar koor détournement la parce que sama sama jabar mi ngi dëkk kastoor yóbbu suukar koor bi maire bi jël sukkarkoor bi yónnee ko doomam buy sëy ndar pour mu jox ko goro yi ne foofu waaw mais après après nag doy doy yow daal def nga si liggéey léegi suñu détourné yow daal sa sa sa part de sa part de de contrat lijjanti nga ko ba pare waaw voilà léegi yow puisque yaa ngi ci média yi et puis thème yu mel nii xamee nañ la yow ban conseil ngay jox ñi nga xamante ñoo di góor ñi nga xamante ni daanaka seen seen euh, seen soxna yi dañ leen di sonal ci lu mel ni sukkaru koor conseil bi franchement ku si jàpp rek li ah, bon bu <laughs> sonal quoi. conseil bi xanaa ko góor ñi dañuy jàppale seen jabari mm-hmm. des fois na ko mën sax te bul ko def soo ko mënee nag day ko def des fois mais bu leen ko tàmmal bul tàmmal nit ñi loo xam ne doo ko continuer. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. suukaru koor dañ ko daan jox ñi nga xam ne sa maam benn maam wala sa benn bàjjen boo xam ne amul doole noonu nga ñëw jàppale ko ci koor gi sa benn rakku jëkkër wala sa magu jëkkër boo xam ne amul doole noonu nga ñëw jàppale ko ko ci koor gi mais bu mu bu mu doon exigence bu mu doon force lu doon force rek da ngay ki mujj sonn am na ay femmes yoo xam dañuy dem banque lekk pour mën a joxe suukaru koor waaw léegi da ngay gis ñaari frair ñetti frère yu bokk ndey ak baay kii mën kii mënul nga gis jabaru ki mën di jaay affaire ki ñi mënul hmm. mhm. léegi man man su ma gisee ni man maa mën gis sama jabar di jaay frère sama yeneen jabaru man mai arrêté lool di ko arrêté man su fekkee ku góor laa te baax damay jël sukkaru koor sama man sama bos sama bos jaw yeneen jabar fere ñu boole dem joxe su fekkee góor bu baax nga su fekkee tamit jabar bu baax nga mais su fekkee toujours da ngay may doole sa sa jabar pour sa jabar di dem di napaaji ñële doo góor bu baax ah Souleymane Faye da ngay dégg mu ni da ngay dégg mu naan nekk ci famille fa yow defet la mm-hmm. nekk ci famille. yow dong réussir fa. si si tu penses que tu as réussi tu te trompes ah. dëgg soo su fekkee da nekk ci su fekkee da nga nekk ci famille réussir fa yow da ngay fexe sa yeneen frère réussir. Mhm, mhm. même su fekkee réussir nu ñu xam ne yow yaa ngi góorgóorlu pour sa yeneen morom yi réussir sa yeneen frère réussir. Mhm. mais su fekkee chaque korité wala chaque tabaski yow chaque koor yaa ngi góor yaa ngi jëndal sa frère yi xar.

Hmm. Et ça, ça touche beaucoup. Hmm. <laughs> Parce qu'il est professionnel. Mhm. C'est ça. Amna lu ma bëgg ci benen média mais damay déglu. Voilà, damay sétan. Dima Fateli aussi papi, notre fidèle auditeur du matin, mon animateur le Espérance FM. tous les jours mom day l'émission émission 8h mais 6h à 8h ñun les déglu mo sogo commencer émission. Kéro tu na la exemple ci 20h TFM non Waaw. Li ñuy wax. <coughs> Mais après, ma xam ngeen fi sen Très bien.